fallu yàgg nga daan um nga lambi soo daan ñoo ngi lay siyaare yaa di samsu soo fallu yàgg nga daan um nga lambi soo daan ñoo ngi lay siyaare yaa di samsu soo fallu yàgg nga daan kum nga lambi soo daan ñoo ngi lay may ñaan yàlla mi di rahman bismillahi rahman rahim daan way ñu maan alhamdulillah way ku yàlla baax wasalaatu wasalaamu ala am xel ndem sa xol ke wa mawlana muhammadi woon wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi tedd yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci sunu bis bi di jiital ci ziyaara yooyu sunu kilifa gi nga xam ne mo nekk ci bopp njabootu Cheikh Amadou Fadal sëriñ Abul Baraka ibnu Cheikh Amadou Fadal di ko ñaanal loolu yàgg fi loolu te wér ak njabootu Cheikh Amadou Fadal gépp di jaaral ci ziare boobu ci moom di ko àggale ci jëwriñam kilifaam sëriñ Sidil Muxtaar hafidahullahu taala wa raa ak mboolem njabootu Cheikh Xadim gépp ak mboolem julit yépp mu mel ni kii dañoo sàkku ci ñun ñu def ay kàddu yoo xam ne dañ ciy fàttalente solos daje bi solos daje bi mooy mbooloo mi fi daje ñu tudde leen Cheikh Mamadou Fadal ñuy am bisub ziar boo xam ne dañ koy daje di faadal yu góor yi ak yu jigéen yi suñ fàll yu góor yi ak yu jigéen yi ngir lëkkalewaat seenu buum feddliwaat seen kóllëre yeesalaat li ñu bokk ci loolu nag ci lañ bëgg wax tuuti aw tur aw tur wu rafet dafa bokk ci li nga xam ne day taaral doomu aadama daf koy taaral moo tax yàlla doon wax ci alquran ni wala tanaabazu bil alqaab bi'sal ismul fusuq tur wu ñaaw dafa baaxul lislaam taamu lool tur wu rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne bokk na ci xàq yi nit ameel doomam mooy na ko tudde turu rafet ci xàq yi la bokk sa doom ameel ko ko àq tudde ko wu rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it daana soppi tur wu ñaaw nit ku ñëw ci moom tudd tur woo xam ne tur wu rafetul la yonent bi daana ko soppi am na ku mas ñëw ci moom mu laaj ko nu mu tudd mu ko aasim aasim mooy moykatub yàlla yonent bi soppi ko soppoon na loolu tur yi fàttalee tur yi fàttalee yàlla lu mel ni ki abdul ahad abdullah abdul qadir ak lu ni mel moo tax sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu it fonkoon aw tur aw tur dafa mat a fonk fonkoon na lool aw tur ba tax na turi léppam turi léppam dafa taaru turi ak njabootam turi ak njabootam muy njabootam gu góor ak njabootam gu jigéen yépp dafa taaru muhammadinil mustafa muhammadinil faadal muhammadinil bashir muhammadinil amin abdul ahad ak tur yu mel noonu di jabaru sëriñ tubaa gépp ay tur lañ yoo xam ne ñu ràññiku lañ turi njabootam gu jigéen it noonu mu'minatu muslimatu muhsinatu taahiratu ak yu mel noonu moo nekkoon turu ak njabootam gu jigéen turi ay dëkkam it la noonu turi ay dëkkam Tuuba daarul minan daarul quddus daarul rahman aj yu mel noonu ñooy turi dëkki Serigne Touba ma damay wax ne waree son na nag wéyal noonu moom bi mu fi nekk kër gu mag gi fi mu nekkoon mooy fii barab bi nekk tey ak jumaa ji laal dara ci kër kër sëñ Abdou laal dara ci kër sëñ Fallou mooy kër gi mu tudde woon Touba bu fi masaan xëyee dem fee jàkkee daarul Quddus nekk ak bayti foofu la tudde woon daarul Quddus bu demee ba julli tisbaar di bëgg a jot mu dem daaru rahman mooy pencum sëriñ Chouaïbou bu fa jullee tisbaar ba takkusaan yi bëgg a jot mu dem daarul minnan pencum sëriñ Bachiru bu fa jullee takkusaan ba timis yi bëgg a jot mu ñëw del si Touba jullee fi timis ak gee fanaan fi ba xëy noonu daan jaabantee diggante yooyu loolu kon li muy màndargaal mooy moom lim lim fi nekk ndoloon rafetal na dëkk ya rafetal na tur ya moo tax nag yenn yenn yenn quartier yi nekk Touba it mat a tuddaat moo tax yenn quartier yi nekk Touba mat naa tuddaat yenn dàkkantal yi nekk Touba mat naa tuddaat yeesalaat ko roy ci sëriñ bi baax na ci lool nag woo xam ne am na ci tur ca ca tur wa siiwul am lu dend ak moom da gis loo xam ne garab lañ ko tuddee new gaag guy yu sew ak gaag daqaar gaag yooyu yooyu wax dëgg yàlla wuute na ak li ñu sëriñ bi jàngal li ñu sëriñ bi jàngal yu rafet yim ñu jàngal daal wara cee jëlee luñ ci jànge ci bind rafetal suñuy tur ñu nit mbokki tur nag bu yàlla dogalee ñu tudde ko ñun fagguwuñ suñuy tur ñun suñuy wayjur ñoom lañ amee njukkalu delloo leen njukkal ci suñ tur yu rafet yi ñu tànnal Muhammadul Faadal bi ñu tànnal ñun ñoo am ñoo ameel suñuy wajur xàq nag léegi ci delloo ko njukkal aw tur nag buñ la ko tuddee buñ la ko tuddee yow mi tuddee sa doom Cheikh Mamadou Fadal dara daf laa war ci moom benn mooy yëg-yëgub cofeel gu tar moo lay puus ba nga tuddee ko sëriñ Falilu yëg-yëgub cofeel googu la la puus nag ba nga tuddee ko sëriñ Falilu dalaa war a puus ba nga fexe ba sa doom ji bañ a am rek aw tur kepp ci sëñ Fallou aw turandoo kepp ci sëñ Fallou loolu képp ku yar sa doom war nga caa góorlu fexe yar sa sa doom jii nga tudde Cheikh Mouhamadoul Fadal ba mu bañ a nekk rek aw turandoo kese la am ci moom waaye fexee la góorgóorlu ci moom defar ay jikkoom ngir mu am jikko Cheikh Mouhamadoul Fadal loolu yow mi ko tuddee doom lolu yow la war jëpp jikko jo xamni gis nga na sa dom mi ngi koy mel mi ngi koy mel ci bokku tak jikko yi Cheikh Mouhamadoul Fadal nga xamne kon kuntu de Serigne falilu woro mel melokan wi nga fexe ba jikko yoyé dañ jikko yoyé dañ jikko yu suufee mo xam rëy la mo xam mana wax lu amul la mo xam war la

ba mu am ca lewet ga mën a muñ ga mën a wàcce boppam ba tolloog doomu aadama yi doon doomi Serigne Touba radiyallahu anhu doon kim doon am doon am walaay gi mu am ak lépp li mu am mën a wàcce boppam ba ñëpp mën a jaxasoo ak moom ca tab ga ca mboolem jikko yu rafet yi daal ci misaal war ngaa jéem a yar sa doom ji nga tudde Serigne Falilu ba mu yar ca jikko yooyee ah, bu waajur wi taxawee li mu war a taxawee ba doom ji mel noonu jël ci jikko sëriñ Fallou li mu ci war a jël waajur wa wàcc na waajur wa wàcc na doom jaa war a góor góorgóorlu nag fexe nag la waajur wa def ci moom nag ginnaaw wutal na ko tur wu rafet wutal ko ci jikkoy sëriñ Fallou ay jikko yar ko ci tàggat ko ci war naa fexe ba kon suuxat loole mu màgg lu mu déggati sëriñ Fallou leneen mu dolli dolli ko ca loolu moo war bu yàlla dogalee nag. wayjur wa defut noona wayjur wa moom tur wa rek la ca def tur wa ndax am na wayjur yoo xam ne duñ ca weesu tur wa waaye lay lay tege ca tur wa ci yarba defar ko ba mun doon sëriñ falilu ndax loola taxoon turandoo yi ci misaal soxna maymuna al kubra wala soxra soxna mu'mina soxna muslima boo ko daan tudde doom da daan bëgg am soxna may maymuna sa kër nga jël sa doom tudde ko jox ko ko dem na ko copier jil ma soxna Maymuna ci ay jikko yu rafet ak yu baax bu ñëwee di daagu sa kër di soxna Maymuna Njaay soxna Maymuna Jóob soxna Maymuna Sàll nu mën a sant nga xam ne yow kii jël na jikkoy soxna Maymuna jikko soxna du faay noonu la war a mel ci aw turandoom kon bu waajur wa taxawut loola nag yow boo demee ba ne léegi nag nekk magum jëmm nag am nga responsabilité nag ci bañ a yam ci tiitaroo tur wi képp tiitaroo tur wi képp man sëñ Fall lañ ma tudd rek mu daal di jeex déedéet sëñ Fallou lañ la tuddee na mandarga wu ci yow na am ay mandarga ci sey jikko ci say doxin ci say jëflante ci sa lépp waaye bu dee du laa tudd sëñ Fallou ca ku jëflanteeg yow ni tuuti ne ne xanaa kii ca yow yaa représenté sëñ Fallou foo foo taxaw dim sëñ Fallou yaa fa représenté sëñ Fallou kon la war a am ci ay jikko ci moom ci ak lewet ci ak mën muñ ci at mën a jéggile ci ak mën a supporter lori nit ñi yooyu war ngaa fexe ba mu nekk ci yow war ngaa fexe ba mu nekk ci yow war ngaa fexe ba buñ ne buñ ne mukk am sëñ fàll la ñu ne lu mu def ñu ne daa port pelant plainte mbokkum taalibeem sàngam ndax day wane ne moom moom kat munta muñ moom day munute muñ sañ sëñ lu jikko dañuy wax jéggile nuruwul sëñ lu jikko dañuy wax jéggile nuruwul sëñ fàllu jikko dañuy wax supporté maanaam leen daa wax naan xajoo naa leen xajoo seeni banga bang mel na ne moom xajoowut bang bang nit ñi ku bang bang ci kawam mu yóbbu la ci yoon benn misaal lañ ci joxe ci loolu bu dee ak tamit noonu nga pexe ba nga nuru sëñ Fallu ci li nga yor nga di ko bokk sa mbokki jullit yi nga di bokk ak ñoom nga nuru leen ci ak tab nuru leen ci ak woyof nuru leen ci ak laabir nuru leen ci ak ak yaatu dënn nuru leen nuru leen ci mboolem jikko Cheikh Amadou Fadal loolu nag koo xam ne sa jur yaru la ca sa jur daal dalaa tudde sëñ Fallu rek bàyyi la noona bëgg ko kee am chance sa way wayjuram da koo tudde sëñ Fallu waaye doy loo wul tudde sëñ Fallu ko kepp da koo tudde sëñ Fallu ba noppi yar ko fexe mu doon am sëñ fal léegi yow yaa war a fexe doon am sëñ Fallu nag léegi yaa war a fexe doon am sëñ Fallu ni nga xamee ne sa baay bi mu la joxut benn capital ngir nga départ ca it yaa lijjanti pour am capital yaa lijjanti pour am capital sa baay yëru la ci yoon wooy amee xaalis yaay lijjanti pour am xaalis sa baay yëru la ci jàngal la yenn xeeti xam-xam yi xew ci jamono yaay lijjanti pour jéem koo jàng jéem koo xam naka noona it noona nga war a jéem a góorgóorloo fexee doon am sëñ fallu yow fexee doon am sëñ fallu di lañ lañ bat sa bopp di jeex sa bopp di seet sa bopp ci bépp jikko boo xam nga ne gis na ne bii jikko bu suufe la wax lu amul wor njësal rëy nay xeeti jikko yooyu boo ci xool sa bopp gis nga ne ma nga ca nga ne man kër Cheikh Mamadou Fadal lañ ma tudde ca yërdu woon jikko ji kon naa ko jéem dindi xeex ak jikko joojee ba mu daj jikko joo xool sa bopp nag gis na jikko jii de waroon naa ko am ci am ma ko waroon na maa nekk ku tawee ca man sama alal daf maa yilif saa bu man ne yëkkatee bëgg a joxe rek alal ji ne ma kon da ngay ñàkk seytaane ma faqra la yàlla wax daal leen ne la kon doo joxe ñàkk da jéem a xeex sa bakkan ne man sëñ Fallu mi ñu ma tudde kat ab tab la woon alalam yilifu ko woon moo yilifoon alalam nga jéem ko caa roy jéem a fexe doon am Cheikh Amadou ci tab ga nekk am Cheikh Amadou Fall ci mën a muñ ga bu la nit ne colaas nga gis ne yow ni ngay dunde kan mooy ku ma wokk ma xori kuma kaata ma matt ko loolu ngay liggéeyee di xanti woo loolu danaa la duma ci sama loxo du la laal ak da nga xam ne du sa morom nga xoolaat sa bopp nag xam ne kat man de am na jikko Cheikh Amadou Fadal duñ daan wax muñ joo xam ne ba léegi dese naa ne man ndeke amaguma ko man kat war na maa jéem mën a muñ ndax sëñ Fall mi ma tudde kat daana wax ne muñ moom kenn képp la ca ñee dana wax ñaar dana wax ne muñ suuf dong la ci ñee ak taalibe maam Cheikh Rafal képp la ci ñee loolu daan wax muñ suuf képp la ci ñee ak taalibe Cheikh Ibra Fall képp la ci ñee kon yow ginnaaw nag yow saw turandoo nee na muñ moom suuf képp la ci ñee ay waay waay waay nag jéem a la góorlu boo munta àgg foofee it nag suuf ñu koy joggi di ci sotti ay ay mbalit di ci sotti ay salpe di ci tabax di ci dawal suñuy oto di ci def suñu lépp suuf na nemm rek yëngatuwul dënnuwul defu dara ginnaaw moom la ca ñee boo munta àgg foofee it nga jéem a góorlu nag Bulas shaytan seytaane naree man sa darin nar a tàng nga wa nar a ki kii fayantoo moom nga ne ah man de na raw Cheikh Amadou Fadal ci mën muñ ga na na na ko na muñ na ko jegal bu jamono ñewé ci yow ak ay ay bang-bangam ak ay metitam ak tisam nga muñ ko nga nango muñ jamono da xat ci yow jamono da metti ci yow ba yalla dogal na nga bëgg la nga bëgg jekko jekko jekkoo sa loxo jotul sa gannaaw ñu tuddee Cheikh Amadou Fadal sa xel nar a dem ci wax lu amul ngir am wala sa xel nara dem ci jël alali jàmbur ngir am wala sa xel nar a dem ci wor nit ki sàcc alalam ngir am sa xel dem ci ne Cheikh Amadou Fadal mañ ma tudde day daanaka ay fan moom cin du tàkk këram daa wut am lu mu añee ca moo doon Cheikh Amadou Fadal doomi Serigne Touba ca moom lañ ma tuddee kon naa jéem a muñ fexe ba li jamono tànk-tànk nag ma jéem a roy sama turandoo wa ca loole bu ma saarit mukk bi mu nekkee xalif général de Mouride sëñ bu sa ilimaan ne ko nañ waat ne ko li ñuy waate mooy dañoo nekk dañoo àdduna dañoo won gannaaw dem ba fii ñu toll mu bëgg ñoo dëgmal ñu ne nañ ko woon gannaaw nañ mel ne ku doon gas ab teen te fekk da ngaa woor ba jant yi bëgg a so teen bi bënn lu ndox mi walwal ñun nañ muñ nañ àggale suñ koor gi ndax loolu beneen marxala la loolu jafe na mooy muñu ñaareel gi nga jéem coro Cheikh Amadou Fadal mooy yow yàlla dogal na jekk nga sa sa sa bopp sa loxo jot na sa gannaaw am nga alal man nga sa bopp ah muñ foofa nag jafe na bare waa na koo yaakaar nii la mel fekk ne daa daa jékkoogul waaye bu jekkoo nga xam ne melul noona bare waa na koo naan daa dëddu àdduna fekk ne àdduna moo ko dëddu waaye bu ko àdduna dëgmalee nga xam ne wuute naa na mu meloon kon nag bu la àdduna dëgmalee ngay tibbe ñaari loxo sa loxo jot sa gannaaw nga man lu bari jéema la roy Cheikh Amadou Fadal ci alal ji nekk ci sa bitti loxo képp ca bañ a nekk sa xol sab xol alal ji nekk sa bitti loxo ca bañ a nekk ci sa xol alal ji bañ la yilif loolu nag beneen muñ la beneen daraja la Cheikh Amadou Fadal mañ xamoon lu jiitu xilaafa xilaafa gi ba xilaafa gi ñëwee daraam soppikuwul daraam soppikuwul du ay colom du ay dëkkuwaayam di aw melokaanam daraam soppikuwul kon yow nag bu muntu àgg foofee Cheikh Mamadou Fadal àggoon it war ngaa jéem a góorgóorlu ci ne alal ji lu mu bari bari kat bu mu ma yilif bu dimbalee jotee naa dimbalee bu mayee jotee naa maye bu def farata jotee naa def farata bu sarxe jotee naa sarxe waaye bu ma nekk di kopp koppal alal ji rek di ko xool alhaakumu takaathur hatta zurtumul maqaabir bu ma bokk ci ñooñee loolu yow mi turandoo Cheikh Mamadou Fadal cay jëm mu ràññee xàmmee nag yaa koy yaa koy jéem a fàggul sa bopp ya koy jéem a wutal sa bopp war nga caa jéem a góorgóorlu bu baax a baax a baax kon loolu ci misaal moom it jukko ju mel noonu war nga caa jéem a góorgóorlu naka noonu wàcce sa bopp bañ a rëy boo ne yow kat Cheikh Amadou Fadel lañ la tuddee ca ñaari baat ñett rek nga naan manum lëm naw sa bopp lool yéem sa bopp lool aj sa bopp lool war ngaa seeraat sa bopp nag ba xam ndax nii la wala du ni ndax nii la wala du ni yow yow wax manum lëm Cheikh Sëriñ Tuubaa radiyallaahu daana wax ne daana wax ne bari waa ku naan manum lëm day lëm ma boo ko yëree doo ca fekk tus fekk booba la ko waraloon daa am ñaari mag ñu jotee kenn ki bi mu ñëwee ci ku baax ki radiyallahu anhu daa yëkkati boppam lool ci kanam ki ci des moom daal ab cheikh la ki ci des nag cheikhul mu feeñal loola yëkkati boppam lool ci kanam kooko sëriñ bi sëriñ Tuubaa deloon daal di ca tàng jër dal na man day bu ma ngeen bàyyi damu ndax fii ak néewuñ bis damu ci diggante bi teel fii ak néewuñ démb loon bis fenc yàlla atta jaam ji ba nga bokk ci ñuy dem àjjana say mbir yëpp baax nee na Sëriñ Tuubaa nee na damu ci diggante bi teel na daal ka ko ca bari waa na ku naan manum lëmm ku naan manum lëmm lëmm boo ko yëree doo ca fekk tus kon kun tudd Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu war ngaa jéem a lu ci jikko yooyee war nga caa jéem a góorgóorlu ci melokaan yooyee fexe yewit nga jéem a xool ne bu dee da ngaa rëy nga lijjanti pour jéem ma nekk ku oyof war gis na Cheikh Amadou Fadal dara ja wilaya ga ak juddu ba lamuy reey reey da na wacce bopam di kaf ak nit ñi di masla ak ñom di dem ci yi di tududomi doom di tak sey mbolem lo xamni nit da koy def Cheikh Abdoul Fadal da ko dan def ngir wacce gum wacce won bopam kon yow ko mën a doon war nga jéem na kon ginaaw Cheikh Abdoul Fadal radiyallahu anhu la tuddee war nga jéem wacce sa bop war nga jéem wacce sa bop baroy Cheikh Fadal ci lolu jéem a am jikko jooju jikko yëpp noonu la mel mbokk yi mboolem jikko yu sell yi ñuy wax jooju xool ne yow daal gis nga ne dese naa am ci yow war ngaa jéem a góor ne ginnaaw sëriñ Fallou lañ ma tudde daal naa ko jéem a roy ci lii loolu nag bokkut ak li nga xam ne dañ ngëneel loo xam ne dañ la koo jagleel tudde gi ñu tudde ñun sëriñ Fallou tudde gi ñu tudde sëriñ Fallou suñuy waajur la ngóor ak suñuy waajur la waaye ñu doon suñuy fa sëriñ nag ñun nag suñu ngóor a da cee feeñ nag ñun faaw ñu jéem a góorgóorlu nag di gëstu suñ Fallou jéem koo xam jéem koo xam xam léppam loolu dafa nekk loo xam ne dafa war ci ñëpp mbokk yi day mel ni kii kàddu yi noonu loolu la ñu santoon ngir ñu jàllale ko lépp lu ñu jub ñoo ko sant yàlla lu ñu dëng ñoom ko jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. at ñëpp teew nañ ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi mënuñoo lim ñëpp ndax kenn ku ne bu jaar ci sa tur sax def fi la ñu guddi gi fekk. waaye képp ku si Amadou Fadal eh, njaboote rek muy góor muy jigéen ku ne ànd nga ak ñoom ci bis bi góor ñi ak jigéen ñi jigéen ñi mënut ñëw kenn ku ne yebal nga sab mu ñëw teewal la ñu fi teew ci ay kilifa sëriñ Fallu moom sëñ Amadou Moutala moom sëñ Touba Xaadim mi ngi nii toog sëñ Amadou Fadal Mbacke moom sëñ Abdoul moo ñu jiite tokku saan sëriñ Fallu moom sëñ Modou Fati Xari mi ngi nii toog sëriñ Fallu Mbacke moom sëñ Abdou Fata sëriñ Fallu Mbacke moom sëriñ Abou Mbacke Fadilu sëriñ Abou Mbacke moom sëriñ Basiru Mbacke Fadilu ak sëriñ Fallu Mbacke ibnu sëriñ Modou Abdou Xaadir sëriñ falu Mbakke sëriñ falu Mbakke moom sëriñ Seex sëriñ moom sëriñ Seex Doj sëriñ Fallou Mbakke ibnu sëriñ Sey Sey Moor sëriñ Fallou Boussa Tamba sëriñ Fallou Touré Madina Touré sëriñ Fallou Ka ibnu sëriñ Moor Lambalka sëriñ falu Si Kaatib ibnu sëriñ Moor Xarisi sëriñ Fallou Ndiaye ibnu sëriñ Mbay Ndiaye Banji sëriñ Fallou Boussa Yaxya sëriñ Fallou Baraka président docteur Thierno Ka sëriñ Fallou Mbakke moom sëriñ mu Abdou ak serigne Fallu mbacke serigne Fallu mom serigne Basiiru mom tam yabal na serigne Moussa domam ak sonna dama mbacke mom si Amadou Fadal kon mbollem njabotou si Amadou Fadal ak turandoo yi ñepp teew nañ kon kaddu gi danaka dañ ko daal di jébbal sëriñ Fallu mom cheikh Amadou Mourtala waye nak serigne Fallu mom serigne Modou Fati Xari moy wax ci turam su noppé ñu jox serigne Fallu mom serigne Modou Aminta Fall su noppé ñu jox président national Fallu Ndiaye May geey ñoo ngi ñaan ñepp ñu diglu tewlu Cheikh amadou Fadal mbacke mom Cheikh Modou Fati mu wax ci turu Cheikh Modou fadal mom Cheikh Modou Talla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 mi nga xam ne mooy njiitul daayira bii di turandoo Cheikh Modou Fadel yi ñu ngi leen di nuyu ci turam di leen jot li bu mu jëmale ci magam xaritam Cheikh Abou Baraka moom Cheikh Modou Fadel di ko ñaanal mu yàgg teewe jataay bii ci turandoo Serigne Fallou yi di am mbégte mu rëy di leen xamal ne mbootaay gii sëriñ bi mi ngi leen di soññiwaat ci góor góorlu ci tool Cheikh Amadou Fadal bii ndax jëwriñ ju mel na ci Cheikh Amadou Fadal soo ko amee ñu tuddale ko war ngaa góor lu baax koo xam ne lislaam bépp kenn ku ne bëggoon naa tudd wowutur su la ko yàlla jagleele war ngaa sant bu baax ndax am na kenn koo xam ne dafa nekkoon njiital réew muy Hivette Boigny dem ba moom réew mi ñu wax ko ne ñaari at moo la desi ci àdduna nga génn am docteur yi wax ko te mu jaaxle lool mu jokkali ko ak président Senghor nekkoon a mu wutal ku ma ñaanal foofu ci senegal sëriñ bu wér mu yabal ndaw yabal ko Cheikh Modou Fadel yónnee ab cargo def ci ak suukar yu baree bari jàq lool defe na day dee ba ndaw la dikkee jox loola sëriñ Falilu ne ko président Abdou Badji moo ma yónni dafa dem ba moom réew mi ñu wax ko ne ko ñaari at moo la des ci àdduna mu tibb suuf jox ko ko ndaw la ne ko ah man de Mbàkke jaaxle naa ndax ki ma yónni de kilifa la te eh, defoon naa ay téere nga may jox ak nangam ak nangam suñ bi ne ko indi suuf si muy ni ma tur sottil mu sotti ma tekki loon yi mu tekki ne ko de ma jàkk boo demee ne ko jàkk ba mu ko nee jàkk amaat na fi ñeent fukki at yu mu jiite ko di waar am na ku ñuy wax sëriñ Ali Fall dëkk ci séew damaa dem ci moom mu di ma nettali ne ma dafa nekk Grand Moulin dafa liggéey ba mu fa liggéeyee ba liggéey bi xaw a def ba doy waar tubaab bi ne ko dem Touba ci sëñ Fallu mu ñaan ñu dikk fekk sëñ Fallu di Touba mu ne ko kii de mooy kilifa Grand Moulin dañu sàkku ci yow ñaan mu ne ko tey lan mu ne ko nangam mu ne ko weer tubaab bi yu su amee fukki fan. nga jekki ba fukki waxtu ci guddi ngeen fekk mbeddum fukk fukki fan ci weeru tubaab fukki waxtu ci guddi ñu fekk ko riidis nee na ñu agsi sëñ bi ne dana baax kër gi dana amar xaalis nee na ñu génn tubaab bi ne ko ah, su defoon ne sëñ bi dana mu ne ko ah, dan dellu mu dikk ma ko ñoom de mbàkke dañoo jaaxle mu ne kër gi dana amar xaalis nee na bi demee ndakaaru bi mu demee France ba ñu yónnee ko xaalis nee na booba ab télégramme lañ mu yónnee su may liggéey mu jóge aéroport rek dawal ba ak ci ma euh, tubaab bee la jox crédit bi nee ma liir ko mu ne sant danaa ñëw kër gi amaat na xaalis mu dem Touba sant sëñ Fall nee na bañ wàccee Dakar rek dañoo jubal si Touba sant sëñ bi nee na ko jox ci xaalis ci saako lañ ko def xamuñu ba léegi nu mu nee na moom këram rek téeméeri junni la leen may bañ fa jaare nee na bañ accès ndaka mun sëñ Fall ne bu ma ñëwee Dakar ngeen ñëw nee na ñëw Dakar ne ko nan dem ci kër gi mu dem ba àgg ñu ne ko dañoo bëgg nga yéeg ci kaw mu ne fii baax na fii baax na daa jur yeneen i kër rek yeneen i kër yeneen ba jur kër yi sab sab su nee na ub beneen ci Togo ub benn ci Abidjan ub benn ci ba ak bi compagnie sucrière bii kooku mooy Serigne Fallilou suñ turandoo yi mooy koo xam ne kii képp kuñ ko tudde bëgg nga nañ ci turi mbégte moo xam ne mii sa yeboo noo ngi ñaan yaa njabootu Serigne Fallou gi fi teew ngeen ñaanal nu suñ turandoo yi ngeen yàgg nu ci jiite ay téeméer na topp seen ginnaaw Serigne Fallou Serigne Mourtala mii nga xam ne mooy suñu jiit yàgg fi lool moom i ay téeméer at topp seen ginnaaw te sëñ Fallou yi yokk te wér te am xéewal te koo bëggul woonum sëñ Fallou it am ko doo ngi leen di xam ne daal mbégte maa ngi bis baa ngi nii sant nañ ñëpp gërëm ñëpp li ma sëñ bi waxoon nag mënuma ko wax ndax sama xol dafa fees waaye nañ xam ne sant na ñëpp cant goo xam ne gii genn féetewu kaw ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wax sañu noo wax fii bu ñëwee danañ mel am néew ci loxo way sang am murid bu ñëwee ci loxoy sëñ bi dañ mel am néew ci lay way sang worno ay ben cër way worno yëgal ben cër fi ne wax ji bar rek ño xay xam ci dara ndax dañu bëgg bëgg rek ak soow dum dum dum ceetaan dum ndaje mo xane politique la du sab du sabar ab ziar la dama wona nag ana ko yar ak teggin kenn ko ne lew ba señ lu señ wax nga dégg ko ba sëñ waxul kam wax lo nga dégg lay wax waye defe nag kenn ku ne taxaso a soow sa morom loolu taxunoo ñëw fii dem fee itam di bokk bi kenn ku gën a jege maa gën a loolu amoo amul njariñ sëñ moom li njëriñ ci moom suñu jëfoo waaye du suñuy wax sëñ Fallou Mbacké mi ñu tuddee ba tax mu ñëw fi ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ci turóo ñu ñu ndax mu ko da waxaloon boppam ci lamiñ boppam moom ñëpp dégg na ko mu ne mënuma fàllu mu ma tuddee mu ne ma xooti mbootu waaye mën naa fàllu mu ma tuddee mu ne ma boole fàllu ma mais ak ndeyam bàyyam tabalaaj na kon loolu donc mën na ko mën na am lu ko loolu doon nag jaamu yàlla beneen liggéey noonu amatuñu li leen liggéey loolu liggéey Sëñ Tuubaa te moo dese waaye ak jaamu yàlla taxut ngërëm daanaka bàyyiwuñu fi nga xam ne lañuy wut ëllëg na ko muy ngërëm loo ne mënuy bàjjee te am naa jëne ba noppi ndax Sëñ Fallu Mbàkke taxawam naa ba noppi noonu waaye li ci gën nag mooy turandoo dañuy wax ne boo ko boo sa doom war naa jël ci moom juróom-ñaari jikko juróom-ñaari jikko ne koo jël ci moom da jël ci baree baree baree baree Sëñ Fallu Mbàkke koo lu juróom juróom-ñaari jikko mbaa doo nga jël ku la seen da war ko am ci melokaan taalibi gi ak yar yi ak teggin yi ak jub gi ak nangu gi nangu jéem a saxoo suñu jëmm yii sëñ Tuubaa kat li fi indi lu muy maye lu muy ablee lu muy saraxe lu muy jaay la bu lu muy jaayee da ngeen la waxoon nee na bu dee muy maye may na ko Seex Anta bu dee lu muy ab di ablee mbaa mu koy dénkaane dénka na ko maam Cerno Ibrahima waaye li doon jaayee nag na ko kon luy jaayee fi ne waaye luy may nekku fi kun nan fa seen a jënd ci li seen bi yor réew sëriñ amoon jariñ réew sëriñ moom day jëfoo gën sëriñ bi ya nga ngaaral ak kaalaam yu bari daraam yu bari defoo fa dara doo fa doo am dara waaw kon nan fas yéene ba jëf sëriñ bi lu nga jëriñ banque bu rëy rëy rëy am yu bari nga dem ut sa compte fa dara doo fa am dara boo lebee duñ la lebal boo am kon nan fas yéene fas yéene liggéeyal seen tubaab mii te na ci bëggam gi di bàyyi tere bi te ko seen bi nu ne seen tubaab moom ku nga xam ne mu ngi gis moom su ko gis du mu ngi gis koo xam ne na nga bëggoon boo gisee sëñ Tuubaa mel nag dee mel waxtu dee mel waxtu ne xam ne mi ngi lay gis yow kon nan góorgóorlu baax a baax ngi jégalu nag ci kàddu yi ndax gàtt dañ noo bett war na ko war na a wax waaye liñ ci teg na mooy sëñ Ba Mbàkke Fàllu mii di sëñ Fàllu Mbàkke ñun ñëpp noo ñaan sëñ Tuubaa bàyyil na ko fi mu yàgg fi lool te ànd ko wér ak njabootu sëñ Fàllu Mbàkke gépp muy góor di jigéen ba li mu yéene liggéeyal sëñ Fàllu Mbàkke maanaam koo njëkkoon suñu fàllu yëpp def ko ndox yooyu yortam te dimbali ba ànd ko ñoom nag saxam na ak taalibe bi guñ nangu ndax dégg nga li sëñ Fallou waxoon léegi ci sëñ Fallou Mbacke nee moom de bu amee kenn ku muy ñee ñaar dong la ñee bu dee ak taalibe bi bàyyi mu seerakal la ci ñee bu dee suuf ak muñ suuf la ci ñee kon ñoom ñaar nag ku leen roy da ma dem nan roy suuf sii ak sëñ Seerakal mii ak taalibe bi moo fi jërëñee. waaye daraj daraja yu bare mu yu bare xam-xam bare du jëriñ kenn dara man fas yéene jaay xam-xam bi ak daraja yi ak judd bi ak code bi ak wërsëg yëpp jaay ko sëñ Tuubaa di ab taalib di ay taalib yoo xam ne moo ñuy gënal lépp ab taalib bi ab sëriñ Tuubaa gënal boppam tax bu la wooyee doo yàggan fee dem bu la laajee lu bare bare dana ci sedd soxla sedd guy bu la liggéey loolu liggéey lu mu rëy yéen na mu ko bëgg na koy defee waaye bu ñu suñu bopp bi nag bu sëñ bi bu ñu fekk mu tëj sax ñu ne ah nan leen moom tëj bu nu bu nu téyoon yàkkamti bu nu liggéey loolu bu liggéey bi méttee nu bàyyi ko fa dem bu nu laajee tey boo léegi am laajaa dama sëñ waxaa li mu yor na ko nag lu mu yor rek bu nu ci moom lay jeex adduna mi ko dàq loo daw daw doo ko jot boo jot bu ne ab course la buñ ci dàqee du raw loo daw daw saay xane sa kanam alal yi nga xam ne saay xane mënu ko am nag mooy alal mi ak taalibe bi ak taalibe bi mooy alal na wut ak taalibe bi sëñ mënu sawafaal mu ma maa ngi dégg naa mos naa dem fi sëñ Touba ni ko Moustapha mu ni ko Mbacke mu ko na nga bëgg ak taalibe waaye bul bëgg ay taalibe mu dem ba jóg mu ni ko Moustapha toogaatal mu ko Moustapha na nga wut ngërëm te ay dërëm na nga wut ngërëm te bul ay dërëm bul ay dërëm ndax dërëm yi lu bari bari fi leen koy bàyyi kër lu bari bari fi leen koy bàyyi fi leen bàyyi soxna yi bàyyi fi doom yi danañ jëriñ fan jëm mooy taalibe gi nangu ak liggéeyal sëñ Touba waaw konoon noo ñëpp di ñaan saa borom dimbali na ko bis bii nu teewaat fi déwén kenn bañ cee manqué yi saa jàngoro yi yëpp mu dindi ko ba mu set wecc mu def ci yaram yi ak wér poos yëpp mu raxas ba mu set wecc mu digg xéwal bu mu ni te lépp liggéeyal ko seen Tuubaa noo ngi jégalu ñëpp te sant ñëpp nag te ñaan saa borom bi ñu jëm yàlla na ci yàlla yi boog jàmm ndax nawet bi kat ci la bokk kon bu woom bu teel bu barkeel bu àgg na ko borom daa ñaay rek suñu na ko daa ñaay rek bu mu joos bu mu yi naaj bi rek te barkeel te lépp liggéeyal ko Sëñ Tuubaa kon mooy xew mooy xeewal yi am na la ci bu dee da ngay jaayee da ngay bayee bu dee da ngay tuggee bu dee da ngay commerce loo ma def rek nawet la kon yàlla na Sëñ Tuubaa nawet yëpp daraje say woo Mbàkke mi teew te ñaanal ko nag ñun ñëpp yàlla lam yàlla dégg na ko te seen lam yi sëñ Abo Mbàkke Fallu yàgg fi loolu di wér ak ñëw ko sëñ Fallu Mbàkke yëpp jërë ngeen jëf ñoo jégg bu baax بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي mbokki taalibe yi دلن زيارة دلن di دلن di yi njiital ci nuyoo bi xalif général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi ci wéral ko di nuyu sunu kilifa sunu wasila Serigne Abo Mbakke moom Cheikh Mamadou Fadal di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggalal nu ko fi ci wéralal nu ko bi jaahi nabil Moustapha barke Cheikh Mamadou Fadal di nuyu sunu président d'honneur muy sëriñ Fadilu Mbàkke moom si Cheikh Mamadou Mourtada mi nga xam ne moom la ñu sëriñ Moustapha Fadilu booleeloon defoon ko muy président d'honneur ànd ak ñun di liggéey liggéey bi booba ba léegi ci tàyyiwul toqiwut ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm di nuyu sëriñ Fadilu moom sëriñ Modou Fati yi mi jor kàddoom nu taftal ko ci moom ngir doxinam wu rafet ak jëfam ju rafet ci biir turandoo yi di nuyu cheikh mohammed murtada mom cheikh mohammed fadal mi nga xamne yalla yàlla def na mu bok ci ñi nga xamne bani sos li moñu ci doon gunge ba nëga ni waktu it waxtu nek mu fi nek ma ngi ko ma ngi koy wax bi ci radio bi première réunion bi ñu ñëk réunion dajalé régional yépp kërëm lañ ko défé won mu dat gàttanuñu teeruñu téru ñu ñu def ko fa bobu ba ak ñun di nuyu Cheikh Mamadou Bachir mom Cheikh Mamadou Fadel wax ko ndax keroog ba ma xalaat bi man ak seigne Fallou Bousso seigne Abdou Karim Bousso mom ño and dem ci mom ma seigne Fallou Bousso seigne Abdou Karim waye seigne bi dafa wax dafa yobante legui ne neena boba la la la jënd turam boba la nek tur turandoo de seigne Mourtala neena boba la tud seigne Fallou waye seigne Fallou ngi bañ nak mom seigne Mourtala <laughs> neena seigne sëñ Fallou ko tudde kon léegi moom itam ñu ngi koy nuyu ndax booba ba léegi sëñ Bachir moom it moom lañ njëkkoon a àndal ci liggéey bi booba ba léegi ñu di ko nuyu gis taxawaayam bu rafet mu di ko ci taxaw dégg nga léegi nag booba ba léegi itam mu jàppale ñu ñu ngi nuyu sëñ Modou Xabbaan moom Cheikh Modou Fadal moom itam daayira bi waxtu wu jógee waxtu wi mu ñëw ànd ak sëñ bi ànd ak ñu jàpp ci liggéey bi di nuyu sëriñ Abdul Fatah mi nga xam ne moom itam moom la ñu fekk si fii ci dëkk bii muy di moom it ni ma ko waxee mu teeru ñu teral ñu togg ay ndab ay añ yu bëree bari jox ko mbooloo mi yëkkati addiyaam joxaat ñu moom itam ni ko seereel sëriñ bi moom itam ci jëfam jooju nga xam ne at mu jot mu jëf ko fii la yendoog nun ba léegi la dem moom itam ñu ngi koy nuyu di nuyu njabootu sëriñ Fàllu gépp loolu nag li mu tax ma jiital ñooñu dañu ay mm, kilifa yoo xam ne dañoo jaayoon seen lépp jënde ko seenu ak taalibe ànd ak ñun ci liggéey su sëñ tur liggéeyub sëñ fàllu bi di nuyu sëñ fàllu moom sëñ Modou Aminta mi nga xam ne moo daanee léegi kàddoom moom itam dama ko wax léegi bi ma koy wax ndax wax bi da koo bett ci biir laa ko waxee ne ko danañ la jox kàddu ren mu gàntal ma ne ko déedéet ab Baay Faal nga ca Baay Faal yaay Baay Faalu fàllu yi kon nag war nga ñoo sànni kàddu jañ soññaat ñu cig taalibe mu nangul ñu ko ndax dama ne ko sa waajur wa sëñ Modou Aminta yàlla na ko yàlla dolli leer suñu fa masaan dem nun fàllu yi di ko yëgali bis bi daf nu fonkoon ba nga xam ne lu ne la nu daan defal bu nu fa ñëwee am na bis maa ngi fàttaliku guddi lañ fa ñëw keroog ba ñu ñëwee ñu ne sëñ bi fàttu na bi ko kenn ay fàlloo lay seet mu ne ay fàllu duñu seet kenn muy tëj wu wubbil ma bunt bi ca woo leen keroog ba ñu ñëwee mu toog ci guddi gi la yónni ki mu neex ne ko fu boisson ne ci mbàkke bu biti yi tëjee bëgg leen nga jëndal ma ko kéro ba mu ñëwee ngi koy wax ay pot lañu jox di ñu di ñu xellil boobu trois heures du mu jot kon koku tur wi ñor nako kon señ fallu momé nak motax señ fallu mi di domam, yalla nak fi fi yagal momi tam futti ku jàpp japp noné waajuram wa japp japp ci turondo yi kon ñing koy sant diko ko gërëm waxoon na fi nege ni daw ne dama bëgg bu déwénee fallu mu nekk na togg ndap andiko fallu yi dé de ñu ndap waye mom dé togg na ay ndap andiko ko ko teranga kon ñing koy sant diko ko ci jëf joju nga xamné jëf nako ci jëfal ko fallu yi sëñ Fall mi tax nga jëf nag yàlla na la fayal boppam maa ngi nuyu nag président yi jógee ci région yi yëpp sëriñ bi jaar ci seen tour dafay xaw a guddi ndax timis ji la ñuy xaw a njëkkalanteel waaye maa ngi lay xamal ne région boo fi gis wala département boo fi gis Ndiaga Ndiaye boo fi gis wala Mbacke Touba boo fi gis ñoo ko indi kenn ku ci nekk dafa def ay oto ñu àndandoo ñoom ñëpp ñëw yendu fi ci suba ba léegi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci jëf joo ngeen jëf Eh, su lay gay ca njaarim danañ ko sant beral cant waa njaarim li tax nag ku jëf jëf ju rëy ñu wax ko ndax ñoom day seen taxawaay dafa ràññ ko lool ci fàll yi ren jii bi ñuy ñëw lañ waxoon daaw ci sëñ fàllu wax ko ñoom façon nañ ko bi ñuy ñëw ren sax de dañ maa xaw a rusloo ndax dama leen a yakkaloon ay ndab waaye nekk ñoom dañoo togg seen i ndab sëfaale ko seen i oto indaale ko ñëwee añ ba desal jox nu kon ñooñu jëf jooju jëf ci teewut ñu indiwaat seen addiyo ju am solo kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan ñi itam région yi yëpp kenn ku ci nekk sa yéene gis nañ ko li nga def gis nañ ko ñu kenn lenn am kenn ku ci nekk la nga jëf sëñ Fallou gis na ko alaaji Fallou Ndiaye gisut keneen gisut waaye sëñ Fallou gis na ndax sëñ Aboo gis na ci sëñ Aboo bu gisee sañ Fallou gis na kon nag loolu rek mooy li ci am solo ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñaanal nag ñëpp rawatina nag jigéen ñi sëriñ bi bala maa wax dara damaa gis gis nga ñi nga jàkkaarloo muy ay jigéen rek kenn ku ci nekk. da ngaa ñaanoon sa borom kër wala nga ñaan sëñ fallu am am sëñ fallu kenn ku ci nekk ba nga ko amee nga fonk ko mu gënal ci say doom nga fonk ko lool andi ko suba ba léegi xooluñu naaj wu tàng xooluñu ker xooluñu dara ñoom ñëpp ñu ji yendu fi ngir seen fallu yi loolu nag ma di la ñaan di la sas loo xam ne nii sëriñ fallu man na ko ci ñu koy waxee ci mii mu liggéeyale woon ba am fi fa muy ndindi xale yii di ay xale yu ndaw di ay fallu ci kenn ku ci nek sa yaay am ci yow yakar serigne fallu yakar ji seen ndey am ci seen mom yalla bu mu cas ñi ngi lay ñaan abo nga ñaanal xalé yi man de dama ñewon ci warallahi alazim bu ma gisee xalé ñuy ñuy ñuy walwali daf ma sama yaram fay daw ma ngi ko serigne mustafa Fallilu ba ñu ñewé di waxtaan benn bis ñu mel nii sëñ Abone mu ñew xey ci suba teel 10 h mu ñew tek ci kërëm ge tok tok ba yak mu deg xaw-xaw jek joy yi mu jek jek ni teul di ñëw ñu naan sëñ baa ngay génn sëñ baa ngay génn mu ñëw toog ma ne ah teel na de nit ñi dajeegul mu ne déedéet loolu taxumaa génn jooyi xale yii laa mënta muñ moo tax ma génn bëgg a wax ak ñoom loolee ba mu ko waxee ba léegi daa maa ngi ñaan lu mu nekk ak fu ñu la tuddee kër goo nekk bu la fa kenn tane loole mu sëñ lu ñaanoon sëñ Modou Bousso ñaanoon ko sëriñ bi ñu ngi dénk nga ñaanalaan ko nun fallu yi bu nu kenn tane ci sunu kër yi ñu nekk nañ fay tane ba bu kenn tane ci lépp lu mën a doon ñoo ngi la koy ñaan ca man ko ca sëñ Fallu man na ko ci dana ko def loolu laa bëgg xale yi yëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm ndax wax dëgg yàlla metti na lool ca suba ba léegi ñii nga jóge Ndar ñii jóge Kaolack ñii jóge Thiès fenn région bu nekk am na ñu fa jógee kenn ku ci nekk yéene ju mat sëkk nga am bi ci guddi am na ku ñëw sama kër mu nee na Ndar laa déggee événement bi ma ñëw ngir sëñ Fallu kooka sax nee na tudd ma sëñ Fallu waaye damaa bëgg sëñ ba ñu woote ko rek ma ñëw kon sëñ Fallu ñëpp a ko bëgg ñëpp a ko safoo sëriñ bi nag nit koo xam ne ñëpp la bëgg ñëpp la safoo la ko waral nag ñëpp xam nañ ko mooy lan daa gaaw rek gaaw gi mooy lan day faj ay aajo am sa aajo tële ca sonn ca doo xool kenn doo xalaat kenn sëñ Fallu rek ngay xalaat ca boo ko xalaatee aajo jooju faju kon nag sëriñ bi loolu moo waral ñun ñëpp amatuñ sago ci sëñ Fallu ni ñu amatee sago ci sëñ Fallu lañu amatee sago ci yow ndax yaa fi toog sëñ toogaayu sëñ Fallu kon nag mbooloo mi ginnaaw bu ma ñaanee sëriñ bi ñaanal nu ñun xale yeeg ñun mag jéeg ñëpp dama dee siwaat nag nun itam nañu wëlbatikuwaat ñaanalal ñu sëriñ aboo mii ak njabootu sëñ fàllu gi ba kenn ku ci nekk yàlla defal leen li nu gën a bëgg lool sëñ aboo de jàmbaar la jàmbaar joo xam ne nii ni ma koy waxee nag mooy lan ba mu toogee ba léegi dañu dann liggéeyal sëriñ Moodu di sëñ fàllu dann jooje liggéey jooje nag moo waral nun nii nu nekk di sonn boobu ba léegi ndax nee naa leen démb ci réunion bi wax naa ko ci rajo yi émission émission yi mu invité yëpp dama ni nit bu la dee lo suko la ngay liggéeyloo lo suko jëlee né la fi la la koy mune ci fam la koy défal da la koy wan mu né fang muy li jëm ci yalla ah dama ni koku marna jara àndal liggéey señ bi nak ñaar rek lañu jëmel jëmee suñu liggéey bii daaray alquran jumaay yalla kon nak juma ji nga xamné ne nako ci padwa ca Padoa muy jumaa joo xam kenn fekku ko ca moom rek mo ci nek ci ci jaayante ngir yalla ngir yalla rek ko mom keneen momuko ko nak mu ci sonu di ci gëreem bo ba naga ni commencé suñu liggéey bi ba noppi waxna ko dembu ba kero ci réunion bi enveloppe baa ngi bu ko ko sëñ fallu tege ci loxom entrepreneur ba nga ne da koy jaaji tek ne ko demal ci kon gañi mani liggey bu mel ni, kun ko lo ci kan ko jox mu dugol la ko ci neegub yalla kon koko wacc na kon ni ngi sant ñep di gëreem ñep di len soññaat nak ci trondo yi di len soññaat ci ndab yi ndab yi magal gi kenn ku ñe gis nañ sa taxaway yalla nañu nu fallu fayal bopam timis ji ya tax lima ngankon ngankoon ko wax bari na lool waye nak comme dañuy jaawante ak timis ji sëriñ bi daal noo ngi soxla yi bari nañ bëgg nañu amunu manunu waaye nag sëñ fallu am na man na ci yaay sëñ fallu damaa bëgg nga boole nag suñ fallu mu defar nu tey ak ëllëg saahiran wa baatinan daanaa ko fi wax nee nañ on amul dara day jël dagam doomu aadama moom man loolu on day yow dox yi ñëw xool am joomam rek yàlla fa ñu ñu ñu ñu xiif ñu suur gën sëriñ bi nag yaay doomu aadama yàlla doomu aadama rek la bëgg ngay sëriñ fallu damaa bëgg nga xool ñu xippi nu xool nu nu suur këll am lu ne gàññ lu mën a liggéeyal sëriñ fallu wasalaamaaleykum wa rahmatullah ni ko sa alak njaay may gay kon ñu jox sëñ Abou Mbacke kaddu gi rek bu noppee nag ñoo ngi ñaan sëriñ bi mu jóg xool mbooloo mi rek suñu aaju yëpp faju ñu sëriñ bi ñoo ngi turandoo ngay ñaan boo bu sëñ Abou Mourtala waxee ba noppi nga jóg xool mbooloo mi suñu yëpp faju billahi sëñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci barke Xaadim al Mustafa. barke Cheikh Modou Fadal. sëriñ bi nee na ñu ngi nuyu mbooloo mépp. góor ak jigéen. mag ak ndaw. gan ak dëkk. sëriñ bi nee na fépp fu waay mën a bàyyi ko ci réew mi ca ñëw fii nee na mi ngi lay ziyaare bu baax. nee na boole ziyaara bi nag ak nuyoo bi. jox ko xalif général de Mouride. sëñ Sidil Muxtaar. yàlla na fi yàgg te wér ba yàlla defal ko li mu bëgg lépp yàlla defal ko ko ñu ànd koog moom nee nañ di leen nuyu ci turu suñu jawrin sëriñ Abo Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal ak njabootu Cheikh Mamadou Fadal gépp di nuyu itam ci turu ki nga xam ne moo yor kàddu kër gi muy sëriñ Abdou Fatah Mbacke ak jawrinam Cheikh Mamadou Bachir di nuyu Cheikh moom di nuyu Cheikh Mamadou Fadal moom Cheikh Mourtada ak mboolem turandoo yëpp ak mboolem turandoo yëpp yi nag ba moom mi ngi ci biir boo lim nee na boo tàmbalee waaye boo ne Fallu yëpp rek nee na da ngay fàtt ni ku fi yendu jii déglu leen nee na képp ku yoonu nit tey jii daal sëñ Fallou nga tudd nee na soo ko bëggee moom nga tudd soo ko bañee moom nga tudd nee na bu kenn dal li wéyee sëñ bi nag nee na bu kenn dal li wéyee Mourtala lay tuddaat waaw waaye nee na mi ngi nuyu ñëpp nee na di nuyu turandoo yëpp bàyyiwul kenn góor jigéen mag ndaw gan ak dëkk nee na nun day nee na ku war te xaw ma nee na xamul ku war a sant yàlla waaye nun fàllu yii nee na war na noo sant yàlla bu baax sant suñu wajur yu bax ya. yi ki kii mënu tuddee day bu sañoon bu sañoon ñëpp lay tudd nee na moom de bu sañon kep ku yalla tudd bind señ fallu ngay tudd nee lool rek la bëggoon ndax sëñ Fallou mbëggeel gi nga xam mom la ko nit ñi bëgg waxtu wu ne day gën a yokk rek nee na daaw jéeg bi ñu nekkee fii sétal daaw sétal ren déwén lay nee na ca déwén lay ëpp de ndax nee na ak du jaaxaan loo bëgg lu loo bëgg lu nekk koy dëggal boo dëggalee rek mu feeñ ci yow kon nag bokki taalibe yi nee kon nag bokki taalibe yi mbokki taalibe yi mi ngi nuy soññ sëñ Mourtala nee mi nuy soññ nee na daayira bii nga xam ne mooy daayira turandoo sëñ Fallu yi nee na ca Cheikh Modou Moustapha ko muy ñu koy doxal ni koy war a doxale teewaayam nee na wóor na ko ne sëñ Moustapha Fallilu yóbbaale na sunu ngërëm nee liggéey nañ ci kanamam liggéey bu sell nee na bi fi Alaaji Mamadou Lamine Baara Mbàkke ñëwee nee na laxa sawaayi waat li nu defoon nu defaat lu ko ba jii aboo mi toog fi tey na fi di sëñ fallu defe naa mu yokkoo ren nee nii mu yokkoo ren mosu yokk ah mosu ne yokkoo mi ngi ñaan képp koo xam ne am nga am sëñ fallu na na ko amaat ndax lu baax moom ndax lu baax xam ne xamul fu mu yem nee na mbooloo maa ngi nii. mbooloo maa ngi nii. ñaanal leen. ñaanal nu. nu gudd fan. nu gudd fan. wér. wér. am am am yu bari. am xeewal yu bari. sëñ Fallou mi ngi lay tuddee. sëñ Fallou mi nu nu tuddee. jëlee bëgg naa ngi jëlee moom ay jikko yu bari. nee na bëgg na nag nu jëlee ci moom ay jikko yu bare bari. jikko ji ji njëkk njëkk. nee na jikko ji ci njëkk nag. woyof tooy yi mooy woyof tooy yi. tabe tabe. silvissé silvissé. mën a joxe mën joxe. doon doon taalibe doonub taalibe bëgg ñëpp bëgg ñëpp yemale ñëpp yemale ñëpp daan jëf ngir yàlla ak sëñ Tuubaa daan jëf ngir yàlla ak jëmi sëñ kon nag yéen kon nag nun da ngeen war a tabekat nee na nun dana war a tabekat nun fàll yi bu leen nay nee na bu nay dana war a silwise na dana war a silwise di xeeñ lu neex dana war di xeeñ lu neex di sol yére yiw di aussi sol yére yiw di joxe di joxe di waxtaan di waxtaan di diisoo di diisoo loolu sëñ Fall nekkoon nee na ci sëñ tool Fall ne woon kon nag bi ñaanal poos yi diis rek nu mën a joxe rek nee rek ci jumaa ji Sidi Mokhtar mi Sidi Mokhtar mi bu julli see bu julli see ajjuma bi mu julli see ajjuma da nga xool rek sama xel dem ci sëñ Fallu nee na da koo xool rek xelam dem ci sëñ Fallu ndax li li daan sol ndax li sëñ Fallu daan sol moom la sol démb da koo jaxase da koo jaxase loolu sëñ Fallu sëñ Fallu moo ko tàmbali woon nee na loolu sëñ Fallu moo ko jax tàmbali woon day wane ne adduna amul solo rek day wane ne lii di adduna rek ci adduna amul solo daa bis boo xam ne bii daa bis boo xam ne nii Senghor dafi ñëw Senghor dafi ñëw sëñ bi sëñ bi bokk yi dem leen wàccee leen wàccee waay sëñ bi ne bokk yi dem leen ngeen wàccee ñëw waay nee na bokk yi kenn ku ci nekk dem jël sa taatu wala sol ko ko sëñ dugg ci biir nee na sëñ bi ci biir génne perkaal boo xam ne bi génne perkaal boo xam ne nii ñaw ñaw ñaw kii baa ngi feeñ ci nee na numéro bi nga xam ne mooy tafu ci perkaal bi sax mi ngi ci nee na mu ne tëng nee na fekk ñëpp gomewul nañ ba ne jàgg mu ne ñu ne ko sëñ bi lii nag nee waay waay yéen yéen ñii sama waajtaay ndax nit moom ñay nekk ci gannaawam rek ñooy waajtaayam nee kon nag loolu ak woyefam ak taalibeem nee mooy sol mu daan sol jaxase yooyu waaye alaaji njaay mi tey rek mbiri jaxasoo bu solo sax ñu kii daa dof nee na dofu day topp rek ñëpp dañu maase ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool. ndax dox wi muy doxi. ndax dox wi muy doxi. doxin wu rafet la doxin wu rafet la ñaari magam yi ko ñaari magam yi ko fa jaaroon rek fa la jaar fa ñu jaaroon rek fa la teg tànkam kon ñun jaaxle wuñu kon nag ñun jaaxle wuñu ñëwuñu kenn ñëwuñu kenn jàqunu jàqunu waxtu wu nekk ñoo ngi bëgg ci yow ñun ñaan njaboot suñ fallu gépp ñu lay ñaan nga yàgg ak njaboot suñ tubaa gépp suñ fallu mi moom suñ murtada ñu koy siyaare bu baax nee na nee na cër bi ko suñ moodu joxoon nee na boobu ba léegi mi ngi koy sàmm kon mbàkke yàlla nga yàgg jiite mbooloo ci barki sëñ Fall. sëñ bi nag nee na. bi nag nee na. mi ngi digal ñi mu war a digal. nee na mi ngi digal ñi mu war a digal. ñu jaamu yàlla. ñu jaamu yàlla. te nangoo liggéey. ca nangoo liggéey. te bàyyi po. te po. ndax jaamu yàlla. ndax jaamu yàlla. moo tax yàlla andi nu fi. andi nu ngir ngir poode. nee na andiwunu fi ngir poode. jaamu yàlla nañ ko jaamu ngir ngir ëllëg jëm. nan ko jaamu ngir ëllëg fa nu jëm. ku ko jaamu boo lëggee boo gisee. nee na ku ko jaamuwut boo lëggee boo gisee. ku ko jaamu ku ko jaamu. boo ko gisee la nga bëgg da boo ko gisee ëllëg la nga bëgg da nga ko am. ku ko jaamuwul nag. wala subillah nan na ko liggéey nee nana nan nan ko liggéey ndax addu bu fi nekkee da ngay nangoo liggéey ndax adduna boo fi nekkee da ngay nangoo liggéey Tuubaa dafa wax ne Sëriñ dafa wax ne ku bëgg teraanga adduna ku bëgg teraanga adduna da ngay nangoo liggéey da ngay nangoo liggéey te fo ku bañ àjjana ëllëg ku bañ àjjana ëllëg ku bëgg àjjana ëllëg da ngay nangoo jaamu yàlla da ngay nangoo jaamu sax ca sax ca ca ko ku bëgg mucc ku bëgg a mucc doo tooñ kenn doo tooñ kenn bi nag ci loolu la digle nan maa jaamu yàlla nangoo liggéey nangoo a fo fo foo ko xam man fu muy doo ko def kon nag sëriñ bi nee na nanu góorgóorlu bu baax nee na wan wattandiku nag yëngu yëngu yëngu yi àdduna yi lu waay yëngu ci yëngu woo jëm ci sëñ Tuubaa nee na ñu ñaanal ñun ñëpp nu maase ànd ak yow liggéeyal sëñ Fallu rek ba liggéeyal sëñ Tuubaa nee na loolu moo doon kàddu yi sëriñ wa salaamaaleykum sëriñ bi nee na ñu ngi sant ñëpp di di samsu soo fallu yàgg nga um nga lambi soo daan ñoo ngi lay siyaare bismillahi may ñaan yàlla mi di raxmaan xel mu jobba soo daan ni maare way ku yàlla baaxal war na waaju am xel ndem soo xol ñaanul mbaa nga doon kuréere mbër mu mel ne jiiwaay dun ko am di caay caay sun mébét du naax saay moom la ñuy xawaare fallu lay wayantoo fallu lay doxantoo fallu lay xelam ñi ma xeeb ba may fallu ay gi daaneex war na gaañi nax neex fallu rekk leen neex way wi am na bi mi toog ci jal bi daa dajeeg bi réew mi lof ba xiif bee tax na mag ñi réere ñépp naa ko mbaake yow mi xew te tekki ñoo ngi ñaan nga tekkey fitna ji fi joore rambu rafle dem nañ ba ni meeg dootuñ del si yaa sañ yi di ay jaloore moo defal murid yi jàmm jeeg yu neex yi moo waral murid yi mel ne ñuy xawaare néegu ñax yi dem nañ tax yu foor yi ñëw nañ léegi sax dani njoñ ay ganaar di reere pis yu foor yi nii sol mbakke yaanu koy jal koo ci gis la mi sol lépp day valeure yaa ma tàggaleeg ruuj tax nga xooma aw naaj fun ma gis damay waaj ko ci kër di waare yaa di ngeen gi yaakaar jar nga daw ba taar taar képp kun fi yaakaar xam na say jaloore yaa nu jumaa ji du ëllëg du baaje ak wàlloom du naaje wóor na waa kajoore maa ngi ñaan ci yàlla ak yonent yàlla yal na way wi saf la muy samab siyaare maa ngi ñaan ci yàlla ak yonent yàlla yal na way wi saf laa muy samab siyaare maa ngi ñaan ci yàlla ak yonent yàlla yal na way wi saf laa muy samab siyaare